Vous n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen gi ngi biir Touba ci boutique Total Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daa di fay def alimentation daa di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp loo soxla boutique bi nag yamul foofu de dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow buti kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a pour seeni conférence seeni réunion seeni cérémonie seeni pause café seeni ndaje

Ya Allah Ya Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokk shahru Ramadan

la mën ci lu baax wul ci tay mengook safaan ba nanga ko baay waaw tey nag ma ne xaaral ma ñëw rek ci la sa sukkur koor jot na sëkk te yàgg na <laughs> dangay def ci sa mënin. waaw gis nga daal laa la indiloon jàllaabi bi. di ko jullee rek ci koor gi. bi nga kub ko daal di koy seetloo boo <laughs> ndogu. naa ne nag ma indil ko bari naa ko. Faat mhm. lii lépp neex na. Mhm. waaye daa am lu ma ko dàkkal. Mhm. ni nga jàppalee sama càmmiñ gi ci biir kër gee. looloo ma dàkkal lépp. ndaxte fii ngay gis nii soo ma joxoon ay junni. te respecté woo sama yaay. lijjantiwuma waaye nag macha allah. Mhm. yaa ko moom kontaan naa de. yaa ko moom ko laal. Eh? da lu mu nar baataare. waa Fatou. bii jabar ku ko am loo di wax. bii jabar saay. bilaay yow yow wujju doo ko am. gis nga de. kii du am waaw waaw xoolal sama xarit bee nga xam ne dama ca yu baax. maa ko jox seen jox 2000 yi nag. kon moom. kon de bu ko lekkee du ko ji. maa ngi jégalu. dama ah. sëkk man reg naa démb tey doog a ñëw. waaw. jërëjëf am ko. dama jottali jot jottali. am ne ko am na ñu bàyyi ko ñoom ñu ñu ñu ko jox. doo jël baax na. nangu jël na ci rubañ. waaw xam nga lan laay wax. Uh-huh. naa si yow. yow moom wujj moom doo ko gaaw am xam nga fii man ñaareel xaritu jëkkër la mais yow maa la garanté yow kër ga yow doo nga fay daago xanaa ay wax day jeex <laughs> yàlla yàlla xam li xew suba moom waaye moom man li ma la mën a garanteel fii maa ngi dund <laughs> kii xaalis bi mu jël indi leen xamu leen fu mu ko jëlee romb ay doomu aadama dimbi liw leen ko ñëw ba ci kër gi ngir di ko yëg suuf ko ngir da ngir bëgg a jaxase di def loo xam ni nit a ngi koy def sax te amul doole ji amul njariñ li ngir lan ngir bañ ko ko ŋàññi mbir nag boo ko def te yàlla rek taxut doo ci am mukk fay suñu borom ay duma rek nga ci am adduya ak lu mën a doon adduna da nga koo war a mën a jiital ci lu baax teg ci lu yoonu siraatal mustaqim lan mooy suukar koor ak fan la ko suñu borom indi amoon na ay jamono ñi woon xool ko sëñ Saliou dañ leen suukar koor nekku lu lu nekku ci saree nekku ci lislaam loolu yëngalu ko daa doon loo xam ne aada la joo xam ne kenn xamul aada la nag ndax jël suukar koor fukki junni ak yu bari yu bari di tegal ko nit te dëkk ngaa koo xam ne amul suba sax mbubu moom sol amul lu mu lekk ngay indi suukar koo naan nii la. Ah, lii mu sol indi suukar koo mooy lan lii mu sol. loxo yaa ji ci ne baaxut. lii baaxut déedéet lii baaxut déedéet. xam nga nag yow gis nga nag yow. Mhm. yow maa ngi doog a xam ne ku soxor nga nag. wér na dégg nga li ma la ko baax waaw ndax moom mii. waaw ji jii bu doon bu toogoon sa wet sol ko doo ko wax dara. Ah. dégg nga may ma rek may yow gàcce nga laa ma. wax na ma ak yow ci sariya nu mu wóotee ma wax ak ci ci lislaam waaw yéen a ngi def jërë ngeen jëf yow daal kontaan nañ ci yow fii sax ku fi yemoon neex na kolom gu gàtt gi mu sol nit di indi la ngeen ko fii fi yoon neex na ku fi yemoon day naqari waa léegi moo tey loolu nga bëgg a dégg moo tey dégg nga waaw te sax man sa diine ji damay bëgg a jaaxal ndax yow boo baag léegi waxoo fi wenn saar ne bu ca lañ ko jëlee suukar suukar koor ñëw ci téere ñëw ci jëdaaya waaw du addis du alxuraan du dara

ma indi la fa nga nekk gis nga nag li may mujjee ko làpp ba nga nooy na saaba ya defoon ak yéefar ya lépp lépp la ba nga nooy la def damay da ngay mën a téere bi xam nga yow gis nga réew mi réewum mu nooy nii nga toll nga mel ne naaf nii ma tollee naaf nag yow mi nga xam motoom naaf moo tax ma bëgg a toog sa kaw xam naaf toog na sa kaw da nga nekk da nga mën a déglu téere yi déglu addi si mën ko ma làpp la ba nga nooy Ah, kër gi nag heure bi kenn du fi nekk. comme noonu nga ko gisee. toogal yaa ak say téere baax na. xanaa toog nga wax sa caay bon ji di ñëw ci kër gi am bëgg. waaw yow daal waxal lu neex rek. Ah. waxal lu neex bañ maa moytu rek. yow mi sa caay wax jël.